الفرقان Assalamualaikum Boki, yi xibaar bu neex neex waaw waaw lan moy xibar bi Babacar Ndiaye bu musuma gis sen youtube bu amé ni ndariñ li sénégalais yépp doon xaar yegg sina nak ci njital serigne Babacar Ndiaye alquran borom xam-xam bu sel bi bokki yow mi bëgg xam ci sa walum diiné dawal gaaw nga abonné ji waaw waaw émission leeral xam-xam nga fi jëm ci walum laaj ak tontu lépp lu la jaxal ci sa diiné di nga mëna xamé ci émission bi di leeral xam-xam dawal gaaw dem youtube nga bind Babacar Ndiaye buur di nga mëna am émission bu fay bàyyi ko en même temps a am émission bu am njëriñ boo xam ni mboolem njëriñ yu nekk ci alxuraan dinañ leen ko indi leeral leen ko ci anam gu yaatu lool sax ak sëriñ Babacar Ndiaye daw leen gaaw abonné ci suñu seen YouTube bu bees bii